sama kër ma waxtaan yi buñ ko man def dimanche fekk sama dayira daje ma waxtaan ak ñoom ndax yoon weeg bokk yi ak lislaam bi li ci xam doy na ma sëkk loolu lay dund du gone may jaayil ku yàlla jàppale laa ku yàlla dimbali laa maa ngi jébbalu ci sama taaw bay Alaaji Maam Cerno ba ma noppee gi san bay laa ko jox sama bopp Seexaw Ba laa tax ñu di ma jox seen bopp Maam Cerno Seexaw Ba la Seexaw Ba laa mbol ci Sëriñ Tuuba moom laa def muy sama Seexaw Ba la ci jàpp ci moom te duma ko ba àddina laa xer maa ngi dee Moustapha léegi naan ko bu sama pexe jubee dinaa ko jox addiyee cent millions xaw ma kañ laa koy waaye yéene naa ko te maa ngi di jëndi yoonu yoonu joxe la ak jëf ndax Serigne Touba ku lépp loo joxe dàq laa joxe mu fay la ndax yàlla fii kulli sumbulatin mata xabbatin wallahu yudaa'ifu liman yashaa wenn fépp ngay lebal yàlla ca noor faraas ko yàlla fee la ak tan daf ko téeméeri gub gub wu ne mu def ci junni fepp te noona la yàlla y fee lépp dara am te yàlla rekk la na am ak rasul mi sëriñu sëriñ Tuuba Cheikh Ahmadou Bamba rekk la am moo tax du ma murit garaaw mooy man du ma jullit du ma mooy duma murit gawuma yàlla bëgguma rasulullahi mooy duma murit mm. ku bëgg yàlla maa nga bëgg rasulullahi Cheikh ba Bamba daa nga doon murit man murit laa te sama maam moom rek a jàppale Serigne Touba ba Serigne Touba am lam bëgg Serigne Touba lam doon ñaan yàlla lépp am na ko te seetaanul doomam yi te ku xam Cheikh Awa Balla xam ne moo ko jur daa moo ko defaral mu jox ko li mu yor waaw kon nag xam na ko boole doom yëpp jox ko sëñ Modou Habib ak sëñ Abdou Khoudous mi jur Bassirou Mbacké mi nga xam ni biñ ko jox baatu yoonu Darou Mouhty booba ci Serigne Moussa leen tàmbalee ba ci Serigne Abbas yàqu ci dara defar rek lay liggéey te ku rafetub juddu la ku am xam-xam la ku jàng la du jànnaxe du jaxasoo du jaawale maa ngi koy gërëm di gërëm sama mbokk yi bokkal ba noo bale yëpp ba wuma kenn gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp te bu ma ren danaa waxtaan ci réew mi loo xam ni yàlla rek ma ko xamal maa ko xam waxtaan ci yoonu murit Cheikh Ahmadou Bamba rek leen yaakaar ku ko yaakaaru man laa bañ a gis addina ak ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sax sun borom ma ko tuddi muhammadul habib lawlaa muhammad maa xalaqtu xalqan bu doon man muhammad du ma bindu dara moo tax ma bindi lépp rasulullahi mooy sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba moo tax sëriñ Tuubaa ne bu ma kenn wooyte Bamba Sàll Mbàkke nañ may wooye xaadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa li sëriñ Tuubaa def ci lislaam def ko Touba kenn defu mhm. jumaay Touba amul ci àddina fenn boo demee màkk nguur gaa yor jumaa ja lu toll ne nguur ga ko yor nga xam ni liy xaalis di wurus di pétrole nekk ci biir géej gi nekk ci suuf si sun borom def ci suuf sa lépp ngir rasul ay ma fa tëdd ka jiite mooma réew mën ngaa tabax lu ne Touba ko fi ne Serigne Touba bi koy sañc di ko gor ni Cerno sama kër ga laa bëgg jumaa joo xam ni jumaay njëriñ bu rumbal la cay tollool mu am ku ko wax ci bokk yi kooko ne ko mën la am sëñ bi tàng jër daane nañu ma wool na ñu woo Seex Ibra Faati mu ñëw mu ne ko diw di dikk fi ma di ko ko wax mu ne mën la am moo tax ma woola Cerno ne ko mën naa am kooka da laa xamut ndax loo bëgg yàlla def ko te yàlla tëliwul dara mu ne ko natt sama kër ga na mu toll yaa ko fañ may denc foofa la yaa ko teg tuuba li abdin muridin saadiqin lahumoo bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyaat tuuba rekk